yàlla def loolu kon ñeen aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ah, ah, ah. seen taxawaay bi rafet na kàddu bu mu mujj bi nañu fexe tàppi xol yi mu muñalante fexe nekk benn ñu xam ne Sénégal moo ñu ñor ñu bàyyi intérêt personnel yi ndax ñu liggéey Sénégal jërë ngeen jëf merci beaucoup. waa sant yàlla sant yàlla ku baax sant nañ yàlla bu baax a baax a baax loo xamante ne nii ñu ngi ko yàgg ko yàgg a topp Euh, depuis lu yàgg ñu ngi suivre Sénégal euh, waaye tey la yàlla dogal euh, ñu jël ndam li kon nag dañ ciy sant yàlla bu baax nag di sant suñu lion yi suñu gaynde yi ñu ngi sant bu baax di sant suñu coach nag Aliou Cissé ñu koy sant bu baax a baax a baax a baax def na lépp defal nañu lépp defal nañu lépp kon ñu ngi koy sant bu baax a baax kontaan nañ gis nga nit ñi man mii tey États-Unis laa jugee ñëw kon xam nga ne kontaan naa mbégte rek moom indi fii nii nii kontaan naa lool ko. waaw mbégte rek. li naan la jot yomb barke yonent bi vingt ngi doon di ko xaar yàlla tey la ko dogaloon kon Sadio Mané. ah yëngal yëngal yëngal waaw waaw ndeysaan yëngal dafa xew dañoo kontaan bila walaay kontaan lu ñàkk reefe lu ñàkk reefe te dañuy mu saaf yëngal ba mu saaf waaw ah, Sénégal Sénégal la laa wax barki Serigne Touba ndam rek ndam rek la ci coupe bi lu mu ñëwee Sénégal dañ koo mérité parce que ñaata at ñu toog di ko xaar dañ koo mérité franchement te dañuy ñaan yàlla mu doon coupe bu ñu jik doon lu gën si ñun ñuy encouragé joueurs yi ñu gën a góorgóorlu gën a yokk affaire gën a booloo. kontaan billaay Fuuta yëpp a kontaan Sénégal yëpp a kontaan ko kontaan nañ si Sadio Mané wane na lépp Aliou Cissé ca kanam ca euh, daal dafa nar neex rek waaw ndax euh, Sénégal mérité nañ ko tamit xeex nañ góorgóorlu nañ ba indi ndam bi Sénégal kay dañuy sant yàll rek waaw ah. mu ni waaw bég nañ lool lool lool kontaan nañ trop waaw. waaw ñu ngi nii gaa yaa ngi nii waaw Ndiago yaa ngi. xanaa kontaan rek macha allah bég bu baax a baax a baax di dolli sant borom bi di wax ne liñ doon xaar ay at yu bëree bëri bëri yegg si na tey donc di def lu dul sant borom bi. Euh, di ñaan yàlla yàlla nañu ko bitik yàlla lafa fa teg Sénégal lépp lu ñaan doon ñaan ci jàmm ci bànneex ànd ak balaa bi ànd ak corona bi dem ndax jaaxle woon nañ lool ba ñu yaakaar ne lii du ma sa am waaye yàlla ci mbaaxam ak ci gëneelam wane waat na boppam ñu di ko sant bu baax a baax a baax di wax ne franchement yaakaar nañ ne Sénégal ak jeune Sénégal lépp lu ñu amoon ci yaakaar incha allah dinañ ko gis atum ren bu soobee yàlla yonente bi soobee yàlla. merci maa ngi jàppale ñoo ngi sant yàlla sant merci. bu koy kooku may maga sax. ci biir. eh je pleurais je pleurais. je suis très content aujourd'hui. ah am nañu ah ah am nañu ah, ah. waaw ah ah taw ah. kontaan kontaan di bëgg yu Saliou Ciss. waaye mu jëm wax mais xoolal Aliou Olem Aliou Olem on Olem Aliou Olem Aliou Olem macha allah kontaan kontaan ah yéen a ko Aliou Cissé yéen ko équipe bi yéen a ko Sénégal yàlla na ñu jik yàlla na ci yeneen ndam yeneen ndam tegu waaw waaw. danañ dem rek yow waaw waaw waaw. ko Aliou Cissé. ne ko yàlla na ko jig ndax sonn na trop si équipe bi. mu jàpp taw a bàyyi. waaw liñ koy ñaanal yàlla na nekk ndam lu sedd. yeneen i coupe topp si. yeneen i étoile topp si. kontaan Sadio Mané yàlla dafa yàgg te wér Sénégal ñëpp yàlla nañ fi yàgg te wér ci baak Seydina Mouhamed ndam li yàlla ñu jik yàlla moom nekk suñu bujjantalu ndam am nañ confiance Sadio Mané yàlla fier de toi ak Sëñ Bamba waaw kontaan rek kontaan rek huit ba léegi ñu ngi feene ba minuit dañuy toog leen xaar barke alxuraan non am na léegi wàll sant yàlla sant yàlla bu baax dañoo kontaan eh, amin Mbaye a baax. waaye di jaajëfal partout dans le monde. rawatina suñu tey njëkkee nañu aéroport instant yi ñoo ñu palais donc pour fàttali leen rek trajet yu jël bon aéroport lañ jógee Léopold Sédar Senghor jaaree université actuellement ñu ngi nii palais. waa tey daanaka Sénégal image yëpp a rafet macha allah. waaye combat yi noonu en direct fii ci palais présidentiel mu mel ni Abdoulaye Diallo moo ko téye mu mel ni Abdoulaye Diallo moo ko téye vrai patriote ah. mu mel ni ñoom gis aussi tamit El Hadj Diouf ci kaw bus bi. mais c'est le Sénégal qui gagne. métti na lool pour ñu joxe une image mais bon ñu ngi jéem. donc li yooyu direct direct biir palais lañ def direct biir palais.